Mustafa santal dayob cant yaa fi gën amul ku lay werante te ka ngaayoo ci Mustafa Cheikh Mustafa te ka ngaayoo nelaw yaa Mustafa ñépp mokk nañ amul kenn ku lay xiiraati luum nan ci mustawa te dal nang nelaw yaa mustawa ñépp mokk nañ amul kenn ku lay xiiraati luum nan ci mustawa wala yaara yum may yaay borom xaas ni mustawa muhammadu abdallahi ax nii bi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 la Seex Bamba noon waa réew mi yàlla ma wooteloo ku dib dof na tuug ni xil wa dew fekk Mustafa Sëriñ Bamba tuubal nan la ñëw nan bi jaayikum te salaaw dootu nu dellu wel nan ci Mustafa ndax ganaar nenam yaak siq yaa cuujëkku mana la dañuy ñaan sa borom nu ci bi rek looloo nu feta dajale nun ñëpp yàlla nu sama borom yàggal nu di fi teewe ay déwéni déwén ndax sëñ bi mënuñu koo fay li ñuy def lépp dañuy ñàq di fi ñëw rek waaye mënuñu koo fay nun ci yàlla defal ndam ci ci nun ñi taalibe di ci barkeel. yaa ko jógee fii laa dëkk. waaw ah, ah, Touba la jullit yi bokki taalibe yi ngi leen di siyaare ci bisub Serigne Touba bu sell bu tedd bii nga xaye moo du Moustapha Mbacké moo ko jëlee woon jaareem andi ko fii. bis boobu la ñuy màggal di ci jàng alxuraan di ci jàng yit lépp lu ci waaye man ci lu baax mu di ko ci def ndax amul lu bis bii te bis bi lu rëy ci nun bis bu rëy rëy ci nun ndax sëñ Touba buñ ko andiwutoon fii kon tey xamu fu nu jëm àddina kon noo ngi sant bu baax di gërëm bu baax Cheikh Modou Moustapha Mbacké mi nga xamee moo dox tànk yooyu ba andi ko fii ñu ngi koy sant bu baax di sant njabootam yii nag moom moom rek lan am amunu leneen bis bi dong lan am ci àddina amunu beneen kon noo ngi sant bu baax di di jëfal képp ku fi teew rek ñoo ngi lay sant di la gërëm waaw keet ne ku nekk tànk yi nga doxe ba ñëw fi ak ya ngay delloo yëpp yàlla na ko yàlla bindal aw yiw ci barke borom Touba Xadim Rasulullah jërë ngeen jëf jërë jëf. man Ndaamaatu laa dëkk. waaw ci boori Ngélémbu. Eh, tey sëñ Modou Moustapha ci ak dundam dara yow mi nga xam ne eh, tey. dafa dafa dafa dem rek nag ma ñëw. dafa dem rek ma gane àddina nag fekk ma ci dundam. tey la doon nettali li xam ne def na ko ba jëlee sëriñ bu mag bi fële ca njaarim andi ko fii. loo ci mën a waaw ak njàmbaaram akuk dalam aku fitam moo ko may loolu ak njàmbaaram akuk dalam aku fitam moo ko may loolu waaw loolu moo ko may ndax xam ne ku ne sëriñ ku ne xam ne sëriñ Touba déggam ak tubaab yi lu jafe woon la. kon bi ko yàlla mbaaxee loolu may ko fit woowu ak njàmbaar googu ba mu andi waajurum wu tedd mu andi ko fii Touba ak njàmbaaram ak fitam moo ko ko may waaw. ah kontaan rek nag képp ku dub jullit rek bis bi tey sa bisa ndax lépp lu yoonu murit am rek ak loolu am rek bis bi moo ñu ko jox Sëñ Touba moo ñu liggéeyal danay añ ñëpp nag la liggéeyal ñëpp rek ku dub jullit rek ak lu dub jullit ñëpp rek am nañu bis bi am nañu ci kontaante. am nañ ci luñ ci war ndax lu waay am rek sant ko sëñ Touba jërëjëf. ah ah doon seet bagage sëñ Touba yi rek wax naa ko sax soxna si naa ko sëñ amul wurus amul or gaalam yi la am bu ma saan gàddaa it gaalam yi rek lay ŋàbb alxuraan la ci daan def ak i tiireem ak suñu suñu borom rek ah nu fas yéene roy nag ci moom bàyyi fi or bi ak mbasee yi ak lale waal yi fas yéene jàng koraan tey ŋàbbu téere tey nga bi li nga xam ne moom la suñ Touba woon nu jéem a roy ci moom wasalaam. bisu Serigne Touba bii juróom gaal yi juróom gaal juróom ñaari gaal yi moo soxna joo sama waajur ci la yan woon gogom ngi ci biir sant yàlla rek ñaan nu fekk ka ay déwéni déwén te lu waaye waay di sàkku rek na la ko Serigne Touba defal jërëjëf jërëjëf moo yen woon gaali Serigne Touba yi moo soxna Diop moo soxna Diop moo soxna Diop mi da këramadu moo ci ñeeg ñan woon gaali sëriñ Touba yi la gaalam a ngi fii aw turam a nga ca biir waaw gaal yi nag lañ kaada mooy gaal yi mu daa defi téere nee na buñ daa dem nee na dañ du nangu gaal yi laal suuf ku yenn ko sa morom da yenn juróom ñaar lañ ba mu yegg sa Touba dund na téeméeri at yu manqué ñeent waaw. waaw sama papa mooy sama waa juru góor waaw ma dëkk Touba nag Daaru Xudoos waaw. soxna Fama Cissé. ñu waaw wax ne euh, bagage Sëriñ Tuubaa la nekkoon. wallaay bagage Sëriñ Tuubaa nekk moo tax màggal gu jot day bu ma xëyee soo bu ma xëyee julli suba damay daal di ñëw siyaara si rek xam lépp moo ko waral waaw ñun sëñ Cheikh Aliou suñ kër gee ñu yore sëñ Cheikh Aliou ñoo ñu ko jox fii bu ma jógee fii maa ngi jëm si kër sëñ Cheikh Aliou gii fi laay fi laay kiyee fi laay dal ba màggal gi yeex ma ñibbi bis bii moom mënuñu see wax leen bis bi moom borom bis moom mënuñu koo fay mënuñu na koo fay fii mënuñu na koo fay fa nu jëm xanaa li si des kay dañ koy bàyyi ak yàlla suñu borom mi nga xam ne mooy fay yàlla na ko fayal fayal ko mboolum jullit yàlla ci barke sëñ Baara billaay moo tax moo tax fi mu ne moo tax fi mu ne ku jóg rek yaa ngi at yi dañ ciy bëgg a wasaar barke ñu fekke waat ko ay téeméeri ati at ak njaboot bépp jullit ci kàttu suñu borom màggal gi moom macha allah yàlla nañ ko teewaat déwén ci barke sëñ Touba njaboot geeg bépp jullit ci barke sëñ Baara Mbàkke ñu ngi leen di sant di leen gërëm yéen itam jërëjëf ñu ngi lay siyaare Mbacke Balaye sa bi fu ñu mën a ne rek danañ ci ñëw balla ma ca ngay si ñi maam jaara ca Poroxaan xam nga ne yow sëñ Cheikh Mbacke barke borom Touba fu ñu mën a ne rek danañ xuus ñëw yal nañu yàlla taaf seen barke ci barkeb sëñ Cheikh Mbacke ci barkeb sëñ Fallou ci barkeb sëñ Bass Abdou Khadir yal nañu yàlla teewale na gën déwén ndax bés bi moom bés bu neex la bés bu sedd xol la bésum ñaanab alxuraan la yàlla nañ ko teewee na gën déwén te ngeen nit ngeen yàgg fi ci barkeb sëñ Abdou Khadir barkeb sëñ Modou sëñ Abdou Mbacke mi nga xam ne mooy suñu sëriñ ci barkeb sëñ Fallou waaw maa nga dëkk Mbacke kuudeeg Mbacke laa dëkk kuudeeg Ibra Faati Mbow man aata Mbow fu màggal ne rek danaa ñëw danaa ñëw teewe ko ci barke borom Tuuba yàlla nañ ko téye negan déen